xarit yi seetaan Sénégal TV ñoo ngi am mbégte di am kontaan te dellu si waat tey teewal leen fii ci Mbour leen présenté seen émission arène sénégalaise tey nag ñu ñëw fii ci salu fitness bi ñëw fekk fi la ñu topp la ci ay entraînement ma fas yéene waxtaan ak moom naka la Pakala di waajalee saison bi ñu dëgmal nekk xam na ni yaakaar naa ne mbër yu mel ni Pakala ak seen i morom ba léegi mënaguñu am li nga xamante ne moo di ay combat ñu dugg ci biir fekk Pakala topp ko ci ay entraînement bu ñu paree waxtaan ak moom Ibou Tokola topp ma ma xool Pakala naka lay dóoree ci bagage yi comme niñ leen ko waxee woon mbër nag fekk nañ ko ci entraitement yu yi metti ñu bàyyi ko mu continuer entraînement am su paree ñu toog waxtaan ak moom Oke, Ya. Itu tadi sudah. comme niñ leen ko doon waxee topp nañ pakala ay ya, entraînement ne gis ngeen li fi def mo ngi ci état mo ngi ci forme fekk nañ fi lu raw li ñu xalaatoon ndax Pakala bàyyi nañ ko fi ay temps yu temps bi mu fi entraîné diire na lool lool foogoon nañ ne sax dañuy ñëw rek saa laal fi benn yoon ñaari yoon arrêté mais dem nañ ba ne ko doy na mu ne yaramam dafa tàng ñu bàyyi ko mu nuyoo yéen après ñu waxtaan ak moom si wàllu làmb waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonante bi di sant si ñaari waajur di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu monde entier rawatina mbur li ma dëkk nii di nuyu bépp nit bi bëggé pakala di nuyu aussi tamit wa saal ku si melni babu David Begay ak sama papa ju baax ji di leen nuyu tamit wa senegal TV yeen ñi nga xam da ngeen def sen déplacement jóge ba Dakar ñew mbur fekk ci ma loolu mënon na ñak ndax ay mbeuri bëre ngi dakaru kon man li bon ko defee ñoo defar si ko mbur rek eh. fert bu gant lay doon ci man dal contane na trop ñoo la gën a parce que dañu xam lan la si làmb. waaw lan moo ma si làmb làmb dama ko mës bëgg rek xalaatuma woon sax mbax ndax man dinaa doon bër mais dama kaf ba loolu dugal ma si làmb aussi tamit mu naan loolu ma si làmb lan nga doon def comme métier balaa ngay bëre. man dama doon dem géej nak, mhm. dama doon dem géej. Ce premier combat, quand est-ce que tu as fait avec Kassevigna Fayal Non, ce premier combat, je suis break imposé. Je suis équipé de Zach Sirat. Je suis en train de 60 000 premier combat, ce premier combat. Qui m'a fait un promoteur de Kozoal, Ousmane Diallo. Ousmane Diallo. ñu gis ne làmb def ay jéego ba paka la nekkoon na ci beneen écrit tey mu ñëw nekk ci beneen écrit boppam. Mhm. muy Mbour montagne ñu bëggoon xam paka la écrit boobu ndax am na encadrement bu doy est-ce que am na ay mag yu nekk ci ginnaaw paka la di diriger écrit bi. waa écrit bi am na ñu koy diriger mais mun naa ne xalaat bu baax du doy. Mhm. làmb ndax géej la rek kenn du ko jeexal chaque jour rek dañuy rooti indi daal ndax affaire lu mu gën a yaatu rek pour man gën a dox. ndax làmb warta mën na yem benn quartier rek ba benn kër téye ko pour man loolu da dem ko quoi il faut nga woo waa Sénégal yëpp rawat nañ dëkk Mbour ñëw jàppale muy mag muy ndaw muy xale daal mun naa ne ñoo ngi liggéey si loolu surtout loolu sax la ñuy gën a liggéey jamono yi. ñu gis ne yow yaay tête de file bi ñu bëggoon xam ndax écrit yi seen écrit boobu am na ay critères yu ñuy yi xale yi nga xamante ne tey dañu ñëw bëgg a dugg si làmb. ndax des fois di ngeen gis mbë xale mu ñëw bëgg nekk mbër ngeen xool kii xam ne kii amul avenir si làmb est ce que da ngeen ko fay garder wala da ngeen koy jéem a waxtaan ak moom mu dem defi leneen lu dul bëre waaw xam nga nit moom du bëgg benn affaire moom nga ko si jéem a dindi pour yóbbu ko si leneen donc bu ñëwee sax bu mënta am dara sax teewul ko boon gisee liggéey boon ko wutal ngeen liggéey wutal ko liggéey mu dem di si liggéey daal mais nit bëgg dara moom nga ne ko lii nii mënoo dem pour man loolu kenn du ko wax doomu aadama daal. mais xam nga xale yëpp daw wutali làmb. mais dafay doy waar nga gis xale mu ñëw dañuy bàyyi seen lépp déjà ñoom bu ñu commencé bëri rek dañuy bàyyi métier bu ñu doon def def ko làmb dugg ci làmb. te gis nañ ne équipe yi bëri na lool macha allah mais chaque année mbër yi bëri mbër yi des ñoo koy ëpp. waaw làmb xew rek làmb teg si nekk suñu cosaan moo tax képp ku yeewoo Sénégal rek muy xale muy mag dangay ngay bëgg làmb te yàlla tax looloo waral tey jii xale bu judd rek day naa man dama bëgg doon bër dimbali sumay ñaari waajur daal moo tax booy bëri di si dugg nii mais du lenn. mais est-ce que yéen seen écrit mës na leen dal ngeen recevoir xale yoo xam ne xam ngeen ne amul amuñu avenir si làmb di ngeen di gis kaay waa waaw ñun suñu écrit moom donc bëri door moo gën a siiw. waaw mais mun naa ñun si mbapat lañ njëkkee. dem di wàll di bëri si làmb nag yi bëri simple. mun naa ne booy bu ñu amul combat bëri dóor ñoo ngi wàll si àll bi yàlla di leen may seen wërsëg daal ñii di jël nag ñii di jël ay trophée cent affaires yooyu daal di suturloo. que promoteur yaa ngi ñëw di gëstu écrit bi di xool xale yi fa nekk ñu ngi leen di jàppale. waaw suñu écrit car macha allah mun naa ne daaw mbuur fi bokk nañu si ñëpp ñëpp ay combat mais ren ji benn komba lañ amagum muy Tyson gin gineew. muy Tyson gin gineew waaw Tyson gin gineew moo war a bëre le 29 waaw décembre. ku mu am. Gora Sock. ñoo ngi koy préparé comme man nu ñu may préparé rek. Mhm. ndax mun naa ne combat bi mooy suñu combat ouverture dañ si war a mun a am ndam moo tax lépp lu làmb laaj rek bu soobee yàlla nañ ko def daal delloo lépp yàlla après. ñu gis nga gëj a bëre bi nga daanee Forza ñëw nga daan ki nga xamante moo di. Elton comment dire moo di Elton bu écrit Balla Gaye mhm. depuis boobu ba léegi est-ce que promoteurs yi ñu ngi ñëw di dox sa yeneen combat. waaw promoteurs yi ñoo ngi dox sumay combat mais mun naa ne si mbëri la des. lu tax mu des si mbër yi xam nga la moo tax dafa des si mbër yi ndax fu mu toll nii làmb gi taamu moo bëgg a yàq làmb gi. mais yow waruñu taamu parce que yaakaar naa adversaire waratu la bañ. waa dëgg la xam nga tey jii ndax am nga fi ay adversaires yu bëri. am naa fi ay adversaires amuñu a bëree am naa fi ay adversaires yu bëri mooy lu ma la wax rek c'est mbër yi ngay bëreel war a bëreel ñoom dañuy taamu am beneen feneen fu ñuy xool te pourtant loolu day yàq làmb gi pour man daal. moo tax ñu ñu fi nekk war nañoo mën a bëre mayante xaalis ndax bu ñu bërewul rek mun naan làmb gi day tëju te bu tëjoo rek mun naan dara dox yaa ngi gis làmb gi nu mu taxee. taxaw na ku mel ni la dëgër amul adversaire Papa Sow amul adversaire Nes moo ngi si côté bi yow bëri na ñoo mën a bëreel man problème bi lu tax promoteurs yi ñoo doxul wala kase yi ngeen juboowul wala yow adversaire yay daw bakala bëri naa ñu ma war a bëreel mais lu ma la wax rek adversaires yi ñooy daw ñoom ñooy taamu te lu ma def si làmb xaaj bi xaajaat defuñu ko Papa Sow moo ngi taxawaalu des années te ngeen war a mën a bëre kenn jëlu ko Lac de lañ koy wax Lac de Guiers bëggul moom lan lay xaar dañoo ñu bëre dañoo ñu bëre moo gën lu muy def bëgg a topp si tebee dem mbër mbër ma ne du bëre ak yow da nga koy bàyyi dem seet leneen ndax kooku rek dafa mbër mais yaakaaroo ne loolu bu yàggee mën na rey làmb ndax gis say morom nanguwoo bëre ak ñoom di xaar ki nga xamante ne bu dee Lac de comme ni nga ko waxee bañ na ne du bëre ak yow nee nga yaa ngi fi gis nañ fi nes amagul combat. Mm. gis nañ fi yeneen adversaire yi nga xamante ne tey ñu ngi si làmb ji war nañu mën a bëreeg yow. waa man ñu ma war a bëreel bëri nañ Tapha war nañoo bëre ndax Tapha Tine dafa bëreeg Elton. Uh-huh. mënalul dara Elton man yàlla def ma joo jël Elton. baatare ko kon moom làmb boole nañu dèjà. la dëgër de làmb boole nañu. xanaa tantan sax nees. ah wax nga naan tantan nag nees. tantan nees. nees nag da ngeen a war a bëre. ndax nees dafa jóge si ay defet contre guy gi nees dafa jóge si défaite man dama jóge si victoire kon man tey ji war naa mën a bëri ñoo xam ne sax ñoo popularité nees bu fekkee làmb lu mu wax dëgg la mhm. man ñooñu laa mën a bëral moo tax mën nees bu ñooñu nanguwul ku dox sama combat nees man dinaa ko jël quoi tey paka la ñu déggoon nga ni yow yaa gën mérité Rocky kii di Balla lu tax nga wax loolu waaw xam nga lan moo tax mu wax loolu mhm. tey ji Rocky kenn xamu Rocky deful dara si làmb mhm. kon bu tëbee tam ñu ne day bëreek Balla Gaye pour man làmb gi moo ngi yow ko yàqu te làmb bu dee bay yàqu kooku noonu bokkul si làmb kooku noonu pour man donc Sénégal la nag nekkul ay question dama koy xarab ak affaire yooyu mais ñun lu ñu def si làmb moom xaajaat bi xaajaat def ko kon Balla Gaye bu dee bay ne day bëreeg kooku bàyyi fi mbëri pour man loolu ko waa pour man. ndax loolu sénégalais yi jaadul parce que moom doxul ñëwul doxul combat bu promoteur moo ko fa fekk proposé ko ko politique la rek muy Aziz Ndiaye yoo Aziz moo bëgg a indi politique loolu du combat pour man loolu noonu du ko am Balla ñu mu war a Sénégal bëri nañu bu demee bay may kooku chance xanaa moom mu ñëw may ñun chance sax moo tane parce que man li ma jaaxal mooy ñi bañ dafa bëri ah man de bu ñu ma fëggoon suba suba ne ma yaak Balla Gaye bu ñu ma fayul dara sax ma jël ko bëre ak moom Balla Balla nee nañ gars yëpp kuñ kuñ ko proposé nga bañ gars yaa ngi daw Balla déggoo bu ñu ma fayul woon dara kon lu muy def buñ ko ko proposé foog mu jël ko bëre ak moom bu ñu ma fayul woon dara ne ma suba yaak Balla Gaye pare naa pour bëre ak Balla Gaye laa la la fayul dara pare nga pour man man bëre ma fi bàyyi bëre laa xam bëre damaa judd di bëre bëre laa xam xama ko doon xëy di bëre dugub pili de tournoi boo xam ne cent litres dafay nekk nga ñaagante ba jël ko dem final jël ko kon koku beure la ñor motax kon tey yow promoteur bu doxon teug pour tëgg la ak bala do ci hésité ben yoon hésité lan la ci ñeme nga ko waaye man amu mbeur bu may bagage bagagem ak ay bala ak ay bagagem am ba Balla gënumaa dis ay bagages ah pakala kon bu dara ngi fi Balla gënumaa dis kon bu dara ngi fi de billahi wallahi wala wala wala gaay nek bur ak ñoo ñëpp a ngi si bagala man Sénégal yëpp may ñaanal ndax mbaru Sénégal la ku parce que dama gis gars yi nekk si kaw di ko daw gars yi ini si kaw di ko daw yooyu ñu ñëw nga ne buñ la ko joxee nga bëri moom ku nekk champion d'Afrique trois fois Sénégal yëpp lay supporter man lu mu bon bon takk naa Brazza équipe nationale jëriñ sama réew dara sax au moins moo tax man mbëru Sénégal la man pare iya naa pour bëreeg bépp mbër mbër bu pare rek pare nga pour bëreeg pare naa pour bëreeg moom ne daal sa problème mooy na gars yi bàyyi tànn adversaire non tànn adversaire baaxul man yenn damay dem ba duru ko iñaan sax mbaa soxor bu nekkee bëre dàq ñu maa bëre bu fekkee mbooloo ëpp ñu ma bu fekkee bagaar dàq ñu ma bagaar gis ne pakala dëgg moo tax mbër di waaw taamu gi mooy man yoon bu ma aw moo diis moo tax keroog temps pass def naa benn sortie mhm. man na yoon bu ma aw mbon bu fa jaar takk ban ndax man yoon bu ma aw moo difficile dafa miti yombul benn yoon te ay poids lourd rek laay desanteel di si ñaagante yàlla dima si may nab loolu la de xëy na dañuy naan ki bu ñu jëlee avance am xoola Elton moom mujjee daan mais mais Elton mbër la Elton lamb ken kon ko fee doon bër dañ ñew ñu bëre rek ku yalla may ndam ñu xam ne la may la ndam ha ah. lan la lamb indi fakala tay lan la ko lamb apporter. wa moy lu wala wax rek lamb moo tax monde entier xam ma lamb moo tax ay nit yu bëri gis ma bëgg ma ta yalla tax moo tax man kut ka kut dina rayante ba tay ji ñom lu ñuy sen si man ma ngi ñaan yalla yàlla yàggale ma rek man lool moy sama ambition dal lu gaay yi tee ma téye ko sama loxo man lool la bëgg muy lan. roi des arènes bi. daan Balla jël ko. waaw daan Balla jël ko kese. man xam li ma si jaaxal parce que man gars yi nekk si kaw di daw Balla yow ngay wër Balla. non man du ma daw mbër man du ma daw mbër man bëree ma ñor leneen ñoruma loolu bër bu fekkoon tey jii damay tasanteeg suma adversaire tiit. Ah. ma tikki sama ngeen mu demaat géej dem liggéey te xam na yi man waruma see am dara dafa jar tiit man du fi tiit kenn ku ma yàlla man dinaa def lu làmb laaj bërek yow si jëm ak ngor ak fulak fayda luma yalla may ma jël. nga jël waaw. naka nga gisee lamb demb ak lamb tay waaw léegi si li nga fekkee lañ mëna wax lamb lamb comme buñ né fi ak ñenti at. Euh. lamb di mu doon doxé ak lamb di mi doxé tay ban jangal nga ci am. waaw lamb demb mu naa ne moo dàq lamb tay boy xol ndax lamb demb mbeuri do ñëwoon taamu. lan mo tax mo la bu jëk mbeuri do ñëwoon taamu. bu jëk mbeuri kula lamb bol rek da ngay bërek mom mu jeex nga dem wëri leneen mais mbëri léegi ñooy yàq lamb gi ñoom ñooy rey lamb gi boo xoolee lamb gaa ngi daanu promoteur dañoo dem ba téye seen loxo sax ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi koy wax mais loolu war ngeen ko bañ parce que muy seen métier ñoo ngi daw di génn lamb gi loolu nag mbëri ñoo ko ñoo koy yàq pas promoteur yi du promoteur yi de mbër li ñuy bañ di taamu moo bugg a yàq lamb yi yaakaar nga mbër mën na daw moromam baraw ko parce que yow ñi ngi adversaire yi nga lim nii ku ci bëriwul ak yow ren déwén dina bëri ak pakala ku si bëriwul ak man ren déwén sax bëgguma bëri ak yow lu tax bu bu ma naree bëreeg ñoom déwén ma dem bëreeg ko jël ndaare si lamb gi sax moom moo ma gënal may bëreeg ñoom. lu tax ndax taxamu gi dafa métti depuis daaw ba léegi ñoo ngi may daw di teggi pour man loolu dafa xew nañ ñoo ñu bëreeg ku yàlla may ndam nga dem seeti leneen ku yàlla may. ndam nga dem seeti leneen kon daal déggee sa jàngat ak yi ñu weesu ak jamono yi ñu toll nii si làmb mbër yi taamu adversaire bi ñuy def yàq na lamb. non dafa yàq lamb gi pour le moment dafa yàq lamb gi man ñu ma war a bëral man dinaa bëreeg ñoom bu ñu bërewut ak man man ma dem seetu leneen dem bëre. loo gis ne tey bu ñu ko defoon loolu dañ. waaw promoteurs yi fi nekk am fu laak fayda rek tey mbër yi war a bëre ñu boole leen ñu bëre ñu war a bëre ñu bañ leen boole ñu bëre. mais day jafe ndax des fois nga wax ak mbër mbër ne la promoteurs yi dañuy am seen ay écrit bopp wala dañuy am ay seen mbëru bopp yi nga xamante ne dañuy dem si mbër bi ku ko neex lañ koy tëgal. non lo loolu mun a ñàkk sport boo gis. Mhm. am na politique yàlla bu mu àdduna promoteur tey jii dina dëkk ci benn gox tey jii si yoon war na mëna jappalé jàppale mbër yooyu mais bu mu fess bu mu ëpp bu fessé bu mu ëpp rek dañuy naan yow fi nga for pour man loolu amul jëriñ ba promoteur da nga wara a ñëpp te yalla tax mbër yëpp ndax bu dul promoteur sans mbër du dem mbër sans promoteur mbër du dem kon ñëpp ñoo wara bokk nday bokk bay yemale ñëpp daal pour man nan nga gisé CNG tay ni muy téye lambi wa CNG di leen gëna ñaax mm-hmm. ndax seen liggéey rafet na lool maa ngi nuyu Alioune Sarr bu baax a baax ndax mun naa ne liggéeyam dafa rafet ndax mun naa ne CNG bu ŋànkaloon làmb gi làmb gi day yàqu de pour man lu fi nekk instant ñu toll ñoom rek ñoo ko mën a téye mu normal seen mandat bu jeexee sax 2014 bëgg naa gars yi falaat dem ñu dem daal ndax xam naa loolu ñoom ñoo ko mën a gérer ku dul ñoom mënuñu koo geere moo tax no ndax ñoom dañoo jàng xam làmb gi nu muy day yàgg si làmb gi. di teg gaa yi si yoon. di teg gars yi si yoon bu dul woon CNG da mbër tee mënoon ko mu dee

waaw loolu yëpp dañ ci sant yàlla ndax Mbour moom mun naa ne màgg da màggaay goo xam ne nii façon médecin bu nekk moo fi ñun médecin jàmbaar mooy sib médecin mooy jàmbaar Ndiaye maa ngi leen di sant au passage ndax mun naa ne ñoom ñoom ñooy sib médecin diñu xoolal suñu wér-gu-yaram diñ teg ci cot di diñ naan lii ngeen di lekk bu leen lekk lii daal lan ngay wax tey jii Macky Sall moo nekk président fii nii tous les Sénégalais tout le Sénégal Macky Sall mooy seen président ñu bëggoon xam la am na benn problème bi nga xamante ne mbëri yëpp chaque jour mooy seen problème ñëpp a ngi koy jooy muy promoteur muy mbër képp kuy ñëw képp kuy dox ci axlu làmb yaa ngi yaa ngi ñaxtu jafe-jafe boobu muy problème mu arène nationale. lan ngeen di wax monsieur Macky Sall bi nga xamante ne digg na leen ko te gars yi nee nañ fii du fi am ñi ne dina fi am. waaw gars yi comme que ñoom bëgg nañ ko yóbbu technopole Macky Sall dañ koy ñaanal yàlla rek. ndax mun naa liggéeyam rafet na lool Sénégal kon sas bu ko waaye Sénégal sas ni ak yam ñu ko yan yàlla na ko yàlla yeggaleel arène nationale ñoo naan dina am technopole am am technopole jam ñaajo pour man yaatu na dañ ko indi jam ñaajo ñu def foofu arène bi Sénégal yëpp séddoo ko tey jii ñun bu ñu jógee Mbour war a bëri jam ñaajo day gaaw suñu waa Dakar war a jóge biir Dakar war a jam ñaajo pour man day gaaw. kon daal waroon nañu leen a dajale laaj leen seen xalaat. waaw waroon nañu woote. laajte xalaat yi ndax gaa yëpp ne nañ ko indi jam ñaayo bu ñu ko indee jam ñaayo pour man xeex bi sax day wàññeeku non day wàññeeku xam nga la moo tax ma day wàññeeku tey jii bu ñu ko indee biir Dakar xeex bi day gën di yokku chaque jour yaa ngi gis journée bu mag bu amee tey jii bu policiers yi génnul ak pour man lu bëri day yàqu mais génn gu ñuy génn moom moo tax affaire bi di di di baax daal moo tax ma ne nañ ko indi jam ñaayo bu ñu ko indee xeex boobu doon am yëpp kenn du ko talati est ce que gëm ngeen ne promesse boobu dina am parce que yàgg nañ leen ko dig et duñu woon gis dara am bëri na ñuy wax que ni peut-être mu nekk lu nga xamante ne côté politique moo tax ñi koy naxee mbër yi bëri na ñuy wax aussi que ni mën na nekk dinañ ko def technopole comme jam ñaajo bi nga wax aussi bëri nañuy wax ne bu doon dëgg la jam ñaajo la ñuy ñëw defaral li nga xamante ne moo di arène nationale bi waaw jam ñaajo bu mooy yoon képp koy dund làmb tey ji rek nga xam luy yoon ak ñoom ñu nekk si gouvernement bi sax xam nañ ne affaire jam ñaajo la baax technopole foo waa technopole nee nañ bu mu si dal. nee nañ bu mu si dal xalaat. bañ man bu mu si dal nañ ñëw jam ñaay def ko foofu rek coow bi jeex loolu la de sama gis-gis bu gàtt. ñu gis ne ku nekk yëg na ne Paka ni Luc Nicolaï nekkoon promoteur bu mag. doon jàppale mbër yi nga xamante ne heure bi bu ko fekkoon boo yu bëri tey ñu ngi bëri gisatuñu Luc suñu boroom dogal na mu nekk ci ay jafe-jafe yàlla na ko ko te yàlla teggil. gisoon nañ la kérok fee nga xamantene mo moo di tribunal nga and ak say rak and ak wa Mbour ñëw teew fa. wa lolu yëpp pour man dañ ci pour man dañ ci sante yalla ndax yalla mom luma tuddu mom kenn mënu ci dara ala kule aldayam nit la nit ku bax la nit ku Sénégal bëgg la nit ku aduna bëgg la xeyna yalla nak moy tek jambi na tom dal mais yalla natt bi mu ko tek ni yalla nako yalla yàlla mun naa ne suba lañ koy àtte ñun waa mbur yëpp nañ mobiliser si yar teggin dem te incha allah bu soobee yàlla ah gëm naa ñu bàyyi ko daal. lan ngay wax sa morom mbër yi nga xamante ne tey taxaw nañ amuñu combat comme nii metti na parce que gis nañ ne li mbër di dundee metti na lekk beeg naan bi say déplacement yaa ngi dem salle yaa ngi fay et tout mbëri nga xamante amuñu combat lan nga leen di wax. waaw mbëri amul combat. dañ ñëw si liggéey beeg xëy na promoteur di di di continent. ko laa ñoo ngi ñaan yàlla yàlla génnee ko yàlla bu ko génnee rek defe naa mbëri dëgër bopp yëpp tey jii moom mun na si ñoom dara daal ndax tey jii xaritu mbëri la woon mbëri aussi tamit ñoo bëgg ko te yàlla tax mbëri yëpp ñëw déggal ko. defe naa bu nekkoon si ay jafe-jafe pour man làmb gi weesu na fii bu yàgg mais xëy na jàmbeeg pexeem yàlla ak dogaram mm. xëy na lii mu nekk nii yàlla na ko si génne ba lépp leer incha allahu rabi. nan ngay wax mbëri ñu waajal suba pour incha allah war a teew fii nga xamante ne moo di euh, terminal ndax suba la ñu war a gisewaat ki nga projet bi mun naa ne Sénégal yëpp a koy teewee fu ay waa Mali demee bay ñëw waa bi waa Mauritanie kon waa Sénégal kon nañ leen war a def surtout ma rawatina Mbour nga xam ne li nit nit ñëpp la woon kon moo tax Sénégal yëpp ay génn ñëw si projet bi. mais du yéen rek a nekk mbari yu dëkk Mbour ndax am na yeneen mbër yu fi nekk ku mel ni Bombardier gisuñu ko fa keroog ndax yéen xam ngeen lan moo ko teree ñëw wala yenn euh, mobiliser wu leen woon fii Mbour pour def benn bloc ñëw Dakar lu xew ba gisuñu ki nga xamante ne moo di Bombardier. ah Bombardier ñun nag xamuñu lu ko tee ñëw xëy dafa am si ay lu mu nekk quoi mais ñun mbër yi fi nekk moom ba affaire bi dalee nekk Thiès ba léegi fu affaire fu ñu nee dañuy àttandi Nicolas rek Mbour yëpp ay jóg rawatina mbër yi fi nekk. ndax ñu dul bër. ngeen organisé woon marche préfet bi tere leen lu taxoon mu tere leen ko. waa marche bi boo gisee yoon tere ñu yoon moo ko xam xam nga yoon moom kenn du xëccoog moom. xëy na yoon lu mu appliqué rek. Mhm. dañ jéem a topp seen tànk topp seen kaw ndax affaire bi mën a nooy mhm. ndax yoon boo ko cook moom rek day daan kii daf may jaay doole. Mhm. te man tey jii man maa moom yoon kon ñun duñ jaayante ak ñoom doole ñun dañuy ñëw ak ñoom ànd ak ñoom si yar ak teggin lu ñu wax rek ñun dañuy appliqué appliqué loolu def ko daal. walu may tago di nuyu suma supporter di nuyu suma ya di nuyu suma papa di nuyu suma mag ak suma rak di nuyu suma am di jàmm di nuyu rawati na salu may entraîner ñom babu ñom david ñom bekay ak sama papa ju bax ji tok ma ngi nuyu wa mbur yëpp dal di nuyu suma supporter yi nek dakar tamit ku si mel ay ñoom diouf ak ñom adam ñom moussa wa wa ki way wa défoncer di nuyu ñëpp dal bép sama bép supporter bu nek sénégal rek maa lay nuyu té lay nan pakala nga ñew légui légui dal sen kaw daal. buñ leen ndax ren mën nañ xalat combat pakala. wa inshallah dina dinaa dina dinaa de bëgg na bëre mom man bëre mom fi bàyyi. loy bëre gaay nga ngi daw kay yow. ndax ma nga wara a bëreel nee nga ñoo ngi daw. ma ngi entraînement chaque jour di xaar combat bu ma bëreewul leen xëy na demoon dinaa bëre est ce que gars du forme bi lañ gis mo tax ñi daw. non gaay ñoo ëpp forme. gaay xeyna ah, ko lu tax ñi daw. xeyna xal xala bi lañuy daw rek. Ah. gaay bu fekke doole ñoo ëpp doole. gaay bu fekke maayen ngi mom bëre bi la ñuy daw ëpp ñu ma ko. kon kon na ko gars yi. non Moussa moom man soxla ma ko. lu tax soxla woo Moussa Dioum. non Moussa Dioum làmb boolewuñu lu ma def si làmb moom xaaj bi dafa ko. waaw man kay Tapha Tine la dëgër deux mbaa Papa Sow. yow daal foofu nga ko kal foofu laa teg suma bët bu ma bëriwul rek ñooñu du ma bëri keneen. bari lañ ñu ci des na yow tamit nessa ngi ci buntu bi di amagul nessa ngi fi ñooñu luma def ci lamb ñoom bu ñëwé def ko rek man ma nangu man ma gëna metti yoon man pakala xamul mu jaar bu nekk bëre na ak mom pakala pakala gis nga tafatin ñi mi jota bëreel fan yi tafatin bu fekkee bëre ma ko dag xeex bi metti na de waaye xeex di ay deuxième ba tama tafatin dalay tamaté ni tamaté gaay bo mu ne xeex te mëno bëre amul dëgg te yow bëre bi saf def xeex bi saf ah. bo mu ne ci door rek man nax la bëre loolu la. jàpp nga ne mën ngaa nax Tapha ci bëre daal. ah bañ a nax ah ku nax Elton mën ngaa nax ku nekk nañu wax dëgg te yàlla tax ndax Elton mun naa ne moo nekkoon balanu làmb gi. <laughs> ah waaw Elton moom gaynde la woon ñëpp teg ko ma ñëw jël ko yàlla may ma si dam kon war naa mën a bëre ku nekk xanaa kon. waaw loolu moom dëgg la heure bi moom waroon na fekk paka la ñu taxawal ko combat bu am solo. combat bu neex waa am du yëpp jóg ndax tegle na ñaari victoire dan ay bëri nga xamantene ma sha allah Elton ku ko dégg comme ni ko waxé rek xam mëna na bëre te nangu nga ñëw jëlé ci mom victoire tok ba heure bi bëré wo du yoon promoteur yi na ñëw mbuur set ki nga xamantene modi di Pakala. ñu fekk ñu fekk fi suñu père mbay gay gardien gardien Rick Nicolai mhm. père ñëw nañ fi tay ci sa salle and mhm. ak Pakala mu ñëw entraîner ci fi lan nga ñuy wax ci Pakala. Mhm. waaw man day ñu ngi may wax sax euh, pa ñàkk ki ñaan waaw ñooñu nag wax dëgg yàlla kontaan naa ci ñoom ndax man defaluma leen dara waaw ñoom daal ñoo ñëw indi seen baax ci fii ci biir salle bi waaw bu ñëwee buñ gaaree seen oto ci bunt bi sax man may toog di leen di xool xam nga man fi lañ ma fekk manoon nañ ne paa bi day garder ligne Nicolas buñ gaaree suñu oto bu nu neexee rek ñu taal suñu oto dem waaye dañuy gaaree seen oto ma ne paa xoolal nu foofu waay di taf ak noonu man dégg bu ñu génn bu ñu entraîné ba pare bu ñuy génn dañuy làmb lañuy làmb dugal ko si seen sama loxo te man duma ko wax kenn waaw. ñu fekk la nga sol waaw nga sol tisetu Luc Nicolaï. ñu ñu ñu ci benn waaw. Sénégal dafa soxla kii di Luc Nicolaï. Mhm. Ah, loolu. nag mu ngeen ma ko laajee ma kontaan ci loolu ndaxte li tax ma kontaan ci mooy Luc Nicolaï dafa nekk ci sama biir xol seey ci sama xol te ni ma seeyee ci sama xol wóor na ne ci sëñ Fallou ne noonu laa seeyee ci xolu Luc Nicolaï waaw. ndax moo toog fii wax ko fii ci biir nit ñëpp bu la weddee loolu laajal baabu ngi ni mi ngi ni toog moo ñëw tagg ma ci kaw ñëpp man nag awma solo damaa woyof toy waaye nag ni mu bëggee sëñ fallu noonu laa bëggee sëñ Fallou loo tax mu gont mu doon maa téye ak fukki loxoom ak juróom. Bécaye David moom moo yéex ki nga xamante ne moo di Pakala nan nga ñuy wax tey si Pakala ndax yaakaar naa ni sama waaye dafa dugg ne day échauffé wu ñu gis ko mu tàng lool ba sama caméraman bi daa xew. noo entraîné nii nag nga ko liggéeyee ba sama fekk nañ ko ci état bu nga xamante ne nii macha allah doy na waar. non da di jàmbaar rek pakala moom ku gis xam ne jàmbaar la quoi ndax xam naa ne chaque jour dama ko ñaax rek si entraînement yi chaque jour dama ko naan del entraîné su baax ngoon nga am combat ñàkk am combat day entraîné bés bu nekk mu ngi ñëw si saalu waaw. gisee tey mbër nga xamante ne war na mën a laaleeg ba léegi amagul adversaire waaw comme lim wax rek taamu boy fi nek rek ndax xamna ne pakala mbeur mu ko dawi tam mbeur mu ne doo bëreeg moom itam da nga ragal rek amna lo ci xalat quoi mais newul ne ñak mu bërëm la newul ne mu xex xam nga ñun ñi dekk ak pakala xam nañ ne pakala beure mom ba muy beure ñun yag nañ ko top quoi ci beure mën na bëre mhm. te lu tamit ndax mbuur fi ku fi dekk do ragal ah comme la Dakar ñooy ragal mën na nek ndax yenn yi eh, ragal lañ ko mëna wax <laughs>

Balla sax bu bëggee nañ bëri ah ndax Balla jot na avance la bërew bëggee mu ñëw ñu bëri. mais man ni ngeen ñemee Balla maa jaaxal yéen war nga bu sew bi sax wax leen ne ngeen wax roi des arènes nooy paka la nee ëpp ma bagage. mais bagage pa Balla Balla wax waxu Casamance rek mais Balla fi nga soo koy dem Casamance. wala bu njëkkee fii fi mu toll nii ndax xam naa ne ñun toog nañ waxtaan nañ. xam nañ li nekk nañ ci loxo. mbuur yéen a ko ko moom ba nun dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam lu mu bëgg yàlla yeggaleel ko ko mu yegg ba ne li mu yoon Fagala amul benn problème xeebul xale xeebul mag ñoo ngi koy ñaanal yàlla sostement man nag daf maa def comme yaayam daf ma bëgg comme yaayam amul bis bu mu ñëw ci salle bi te ñëwul fekk ma si fii sans place bii kon maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla mi man tey mais yal na ko yàlla may Pakala daal yal na ko kanam ci kaw ci kanam rek ndax dafa baax bëgg nañu waa Mbour fonk na leen sagoo na leen